UCAB FM li gën a fës ci yéene kaay Papa Saer Mbaye bismilla giseenu coalition yi nga xam moom moo di yeewi ak wàllu ci lu jëm ci wàllu conseil économique social et environnemental ak haut conseil des collectivités territoriales yéeni kaay yu bëri moom la ñu xëy diñu ci nettali sunu naataangoo yi xëy di xamal ne ñaari kuréel yi nekk ci kujje politique gi ñoom nag na lii di seen naqaru xool ci taxawaay bi nga xam ne kon ñaari kuréel yi taxaw nañu ko ñoom nag benn gis-gis lañu ci am sunu naataangoo yi di enquête ñoo xëy diñu ko nettali diñu xamal lañu bëgg rek mooy nanu ko tas intercoalition wala yeewi daje nanu ak taskatu xibaar yi seen bëgg-bëgg leen la mooy conseil des collectivités territoriales ak li nga xam moom moo di conseil économique social environnemental loolee nanu tàggoo ak nguuru Sénégal nanu ko fi génne faxas ko am seet wecc yéeni bi xëy di xamal ne kujje politique yi kay ñoom lañu bëgg mooy ñu jële fi ñaari kër yi doon conseil économique social environnemental ak HCCT yéeni kaay di xam le ne seen janoo ak taskatu xibaar yi ñoom fesal nanu jafe-jafe yi nga xam ne kon askan wi ñu ko ciy dund ta xaalis bu def te amuñu benn njëriñ ci biir réewum Sénégal yéen kaay bi di Vox Populi yéen kaay moo xëy di ko nettali di xamal ne intercoalition wàllu Yewwi ñoom nag jël nañ seen ab dogal nee na naka yi nga xam ne kon moom la ñuy waajal ñeenti fan ci weeru sàttumbar ngir mën a tànn ñu war a ci au conseil des collectivités doon ACCT ñoom fas yéene wuñu caa bokk yéen bi di xëy di xam le rek ne kon ku jëg politique yi war nañu ginnaaw jogante yu ñu ngi ko cay waajale ndaxkat nee nañu jamono ji boo xoolee koppar yi nga xam ne kon dugal nañu ko ca bëri na lool te nag gis ñu njëriñ li ci biir réewum Sénégal ñaari kuréel yi di HCCT ak conseil économique social et environnemental yéenekaay bi di xamle rek na luñ ci mën di xamal ne kon moo fa nekk doon ñu ñu tànn ngir ñu dem fa daanaka politique dong loon fa te amuloon njëriñ réew mi loolu moo tax ku jëg politique nag lii na fa jóge yéenekaay bi xëy di xamal ne lu ci mel ne mouvement politique yi gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany ak ñii di coalition wàllu ak yewi kenn ku ci ne fësal nga sa ñugu-ñugi xool Déthié Fall doon kenn ci ñooñu parti yi nga xam ne ko ñoo nekk ci kujje politique yi doon intercoalition wàllu yewi ñoom ñi nga yu bëri yoo xam ne kon askanu ñu ko ciy dund fi mu toll nii daanaka nguur gi bàyyi wu ca xel waaye nag li nga xam ne kon moom mooy fexe rek ba làq ñu koy faral ci wàllu politique loolee rek mooy li ko gën a ñor loolee mooy fësal li nga xam ne moom moo di taxawaay bu ñaari kuréel yi taxawoon na ko ca doon ACCT ak conseil économique social environnemental yéenekaay bi xëy xamal ne bu ñu sukkandikoo ci yoo xam ne kon ñi ngi fi ñu leen di sotti xaalis bu dul jeex te nag gisuñu njëriñ li ci biir réewum Sénégal mu ne nag ñoom waa Benno Bokk Yaakaar dong ci coalition yi nga xam kon ñoom ñoo fa taxaw yéenekaay bi xëy xamal ne luñ ci nemmeeku ñi nga kon ñoom ñoo di naataange askan wi coalition yu ci kujje gi ñoom nag ñun ci mën di nemmeeku ñooy ñi ne kon ñoo fas yéene dem ci wàllu jongante yi le quotidien yéen kaay ñu koy xam ne kon ñu ngi koy xaar bay boo ko jàpp ne ko ñi nga xam ne kon ñoo ci fas yéene soobu mooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar doon coalition bi nga xam ne kon moo nekk ci a gi waa naataange askan wi ak coalition bi nga xam ne kon moo jëm ci wàllu woowu le ñoom rek ñooy ñi nga xam ne kon ñoo war a bokk ci wàllu ko yi nga xam ne kon ñu ngi koy xaar a a conseil des collectivités territoriales di HCCT quotidien yéen kaay ñu koy nettali intercoalition wàllu yeewi ñoom nag nee nañu dana yóbbu ca pencum ndaw rem benn proposition xam ne kon dafay rek sàkku ngir ñu far ba mu set wecc lii di HCCT jëlee ko fi yéen kaay bi di Walf Fadjri ak quotidien ñoo xëy di ñu ko nettali su naataangoy xëy di xamal ne pencum ndaw réew mi nga xam ne kon moom la ñuy séentu lu nara a tàng jër moom lañ fa mar a xaar yéen kaay bi xëy di xam le ne luñ ci mën di nemmeeku koy jamono ji lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon nemmeeku nemmeeku nanu ko ca doon na loo xam kon lu jar a bàyyi xel anam bi nga xam kon moom la ñu tànn njiit la Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam kon moom moo nekk ca bopp ba doon ACCT yéenikaay a gaaw turbine nga xam kon def nañ ko ci ñaari kër yi doon ACCT ak conseil économique social environnemental ay milliards yu takko takko la loolee bokk ci li nga xam kon moo gën a indil jafe-jafe askanu tribune ko ñuy koy nettali Sud Quotidien yéen kaay moom xëy di gis ne luñ a samp balaa yàgg dara loole nag naa dugg ci fitna te tàmbalegul liggéey bi député yi xam ne ñoom lañ ca tànn ñu war caa dem yéen ci mën di nemmeeku lu jëm ci wàllu ko seen mandat bi est-ce sax ñoom danañ ko jeexal ci juróomi at yi nga xam ne kon moom lañ leen fal yéen kaay bi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmeeku lu jëm ci wàll ko jongante yi nga xam ne kon jàpp jàpp nu ko février 2024 loole bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango ñu ngi xam le ne loole nag am na ñenn ñoo xam ne kon la ñuy xaar rek mooy lu jëm ci wàllu woowule ñu tas li nga xam ne kon moo di assemblée bi xëcc lii di wote yi boole ko ak li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko li présidentielle boobu nga xam ne kon ñu koy amal bi xëy di xamal ne boo sàggantul jogante législative kay danañ ko xaarati fanweer ak benn fan ci weeru si la 2024 yéen bi xëy di xamal luñ ci mën di nemmeeku kay yi nga xam ne kon ñoom la ñu fal ci coono dëgg la ñu nar amal seenub liggéey boo sàggatul sax seen mandat juróomi at du ndax la ko waral jàppal ak bàyyil gi nga xam ne kon nekk nañu ko Cheikh Tidiane Youm nga xam ne kon yëkkati na ay kàddoom ne nag lu a ñu koy di nemmeeku nañ dem gëstu ji li nga xam ne kon moom moo di ca virus boo xam ne kon loolu nag mi ngi bawoo ci mala yi jëm ci doomu aadama yi yéen kaay bi xëy di xamal ne bu ñu koy xool na nag ay nuroo waale lool la ne lu toll ci fanweer ak ko nett le soleil yéen kaay moom xëy amuk jaaxle lool ci faatu goo xam ne kon daanaka dañu koy gis ci dal yi nga xam ne kon mooy wàcc ci kaw doomu aadama di leen faat loolee bëri na lool ci biir réew mi yéen kaay bi xëy di xamal ne moonte day kilifa yi ñu bëri dañuy tànqablu lu nu mel ndax nag buñ koy xool nawet bu jot daanaka ñuy dégg lu nu mel ay dal yoo xam ne kon dafay daanu ci benn matuwaay boo xam ne kon jël nañu ko ca yéen kaay bi xëy di xamal ne lii kay jot na kon ñu mën caa bàyyi xel kuréel gi nga xam ne kon moom mooy waa inspection générale des bâtiments ñoom nag la ñu gis doon na si junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci ay taax yoo xam ne kon fi mu toll nii daanaka xaw na noo daanu ci biir réewum Sénégal yéen kaay bi xëy xamal ne boo ko xool ci biir diwaanu Dakar ndakaaru dong lu toll si juróom benni téeméer ak ñaar fukk juróom ñaar ci ay taax yoo xam kon le soleil ñoo xëy kon borom camion ko ca Mali fukk ak fa sunu ne ñaar benn yee moom ca saasa lañu ko taal am yeneen yoo xam ko caxat caxat tey yéen kaay bi xëy di xamle rek ne nguuru Sénégal ci ba coow la jógee loolu nag jëloon na ci ay matuwaay moom njiitu réew mi woon na ne mboolem ñi amoon camion yooyu te ñu yàqate woon ko kenn ku ne dana la jox juróomi million ndàmpe la ko ngir rek nga mën koo dëfaloo waaye booba ak léegi ñi ngi xaar yéen kaay bi xëy dalal ki nga xam ne kon moom moo di a moom ki nga xam ne kon moom bokk ci syndicat dawalkat yi moom nag yëkkati ay kàddoom ne nag gor ca wax ja njiitu réew mi lam leen digoon ak léegi ña ngi koy xaar gisaguñu ko loolu nag seen ay ñugg-ñugg xol lañ ca fës seeni fësal su naataangoo yi di e media point moom naka fesal na kàddu yi keneen doon Abdoul Mbaye ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi askan ñu koy dund ca Ndakaaru mbënn mi ci kàddu yoo plan boobee nag mi ngi waroon door 2013 2023 su naataangooy ne Abdoul Mbaye ci Twitter boo xam ne kon a fesal na ko ca moom nag ma ngay xam le ne nguur gi daanaka ca foi la nu nekk moo tax lu bare bëri dañu koy umpale ne nag lu jëm ci wàllu plan bi nga xam ne kon moom la nguur gi wax ne moom la fas yéene taxaw askan wi ci wàllu mbënn mi loole nag nekkul 2012 2022 waaye 2013 2023 la loole nag moom kii di Abdoul Mbaye jot caa indi ay kaddu di leeral président Macky Sall ma nga ca lu jëm ci wàllu concours général bi nga xam ne kon moom la doon jiite sunu naataango yi xëy di xam le ne njiitu réew mi kàddu yi nga xam ne kon yëkkati na ko ca kañ lool ñi di ndongo yi ak taxawaay bu def nañu ko ca waaye nag gaaru waale ñi nga xam ne kon dañoo nekk sa naka su dul noonu moom njiitu réew nga xam le ne ñooñee nag seen place nekkul benn yoon ci l'école yi waxatuma la daara yu kaw yi moom président Macky Sall yëkkate ay kaddu rek di kañ yi nga xam ne kon ñoom ñoo di ndongo yi nga xam ne kon ràññeeku nanu lool ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu wale su naataango yi xëy di fésal kaddu yi njiitu réew mi ci alxames ji nga xam ne kon doon na teewe loole di cérémonie remise édition 2022 bu concours général bi sunu naataango yi xëy rek di xam le ne luñ ci mën di nemmeeku delloo noo njukkal nag lu jëm jëm ci wàllu ko ndàmpaay yooyu nga xam ne kon doon nañ ko ca jox lu toll nag si juróom ñeen fukk ak juróom ci ay lauréat yoo xam ne kon jox nañ leen seen ay neexal ak ñenn seen ay waajur fee teewee lu ni mel yéene kaay bi xëy di xam ne ne njiitu réew mi potoxlu na ca lool kii di Fatou Niang bu lycée d'excellence Mariama Ba mi nga xam ne kon moo nekk meilleur élève 2022 bu Sénégal ci rafetlu bi nga xam ne kon taxaw na ko ci wàllu wunu mel kookee di Fatou Niang moom sax ca la nu koy jeexale yéene kaay bi di Dakar Actu point moo xëy di xam lene moom mooy kon moom kii di Fatou Niass moom mooy meilleur élève bu dul xam kon moom di réewum Sénégal ci atum bi sunu naataango yi xëy di xam leneen moom xale lu jigéen lii moom nag mi def classe première s ci école Mariama Ba ba ca Gorée yéenekaay bi xëy di fàttali rek ne concours général bi nekk ci atum bi lu toll si ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ñaar fukk ñaar ci ay xale bindu woon ngir bër ca bokk ca ca pandaw la nag yéenekaay bi moo xëy di xam leneen lu toll nag si junni classe première la no nekk ci na nag am na si lu tol si junni ak téeméer yoo xam ne kon ca classe terminale ci cappaandaw la nag ki nga xam ne kon moom moo di Fatou Niass moom moo jël li nga xam ne kon moom moo di raw gàddu gi moom la nu tànn mooy élève bi dàq jàng ci atum 2022 ci biir réewum Sénégal ci téeméer ak ñeent ñi nga xame kon ñoom ñëpp am na ndam ñu leen doon jox seen raaya nekk ci bëccëgu tey gi mbokk yi yéen a gaaya ngoog dig dañuy lëkk incha UCAB FM li gën a fës ci yéen kaay Papa Saer Mbaye